bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant fii ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo jàkkaarloog jumaa ji ci teewaayu Serigne Mouhamadou Xaban Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal ak Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abibu Serigne Xaadi Jaxate buñ leen tuddee euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoom la Serigne bi taxawuloo wàllu njàngum alxuraan mi. ak teewaayu Serigne Youssou Diop mi nga xam ne euh, dégg ngeen kàdduy yi Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mu Serigne Abdou Khader mu jëm ci wàllu bisu euh, bi Serigne bi woote muy njàngum alxuraan xaside yi ak zikrula mu boole ko ak Serigne Hamsatou Mbacké moom Serigne euh, bu Mbacké ginnaaw nag woote bi nga xam ne Serigne Cheikh Bassirou def na ko ñu indi ñi nga xamante ni ñoom la Serigne bi taxawuloo njàngum alxuraan moomu ni ñu ko fas yéenee defee ak lan mooy matuwaay yi nga xamante ni dinañ ko jël. bu ñu yeggee ci bis bi muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski yi ñu nekk dëppook vingt cinq ci weeru juillet atum deux mille vingt deux kon dinañ jox sëriñ Xaadi Jaxate mu ubbi leeral liggéey boobu ni nga xamante ni ni lay demee bu ñu noppee jox kàddu gi jëwriñu daara isbu tarxiya sëriñ si Diop bu noppee sëriñ Ibrahima si moo ciy topp bu noppee sëriñ yoon yónni waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi taxawuloo jumaa ji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 gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kaw njort yëpp te ànd ko moom ci barkeb sëriñ bi eh, ci ndigalal sëriñ Modou Xabaan ñu Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñu jataay bi sëriñ bi dénk ko lépp lu jëm ci njàngum alquran ci yoon wi ak kilifa yi mu àndal eh, tàmbalee ko ca kilifaam ga sëriñ Basiru sëriñ Mahamadul Fadal ak sëriñ Basirum sëriñ Habibu sëriñ Amsatum sëriñ Soaybu ak mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo ànd ci waar woowu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ànd ci it ak sëriñ yu Diop ak mbokk yi bàyyi ko ci Hizbut Tarqiyyah yëpp ak sëriñ Abdou Lahad maam Assa ak mbokki Muxaddamatul Xidma loolu li muy tegtale mooy euh, mbooloo mi ànd fasoo jëfe ndigalal sëriñ bi xam ngeen ne ci dibeer ji weesu la sëriñ bi digle woon ne nañu tàmbali njàngum alxuraan ba altine jii ñu jëm di ñaar fan ak juróom ci weer wi eh, bu ñu àggee ci altine ji ñu maase ñëpp eh, ñi ci nekk ci dëkk bi maase ñëw ci jumaa ju mag ji eh, moom mu jiitu ca xatmu ba mbooloo mi ànd ci ku nekk fu fu mën a ne mu ne fa ñii di jàng alquran ñii di jàng xasiida kuy tudd yàlla kuy joxe ay bernde ak lépp loo xam ne lu mën a dundal bis bala mbooloo mépp ànd ci sëñ Mahamadul Xabaan wax ne kon ci digalal sëriñ boobu mu ngi ciy soññ ñëpp gannaaw bu mu ci soññoo ba noppi fas ci yéenee jiitu di ci woo mbokki taalibe yëpp ñu yeesalaat pas-pas yi euh, maase ci njàng mi ba àgg ca altine ja buñ ci àggee itte jëpp ñu jëme ko ci euh, lool yi sëriñ bi bëgg ñu maase def ko euh, pas-pas bi moom ñu bàyyee ko sëriñ bi xanaa lañ ciy fasal sëriñ bi nag mooy suñu borom yàggal ko fi te wéral ko donc yëpp maase nañ xam ne bu sëriñ bi amee bëggam seenu bëgg ngi ci biir ak bëggam waaye seen bëgg gi gën a rëy tañ di ko ñaan seen borom mooy suñ borom yàggal ko fi te te wéral ko bu ko defee it muy soññee ci lépp loo xam ne luy yéwénal bis bala kenn ku ca nekk lu mu ca man mu taxaw ca ndax sëriñ bi mu ko santaanee moo ci jiitu waaye ku ne xam na ne su mbooloo mépp jógandoo euh, kon kenn ku nekkit taxawaay ba mu ca euh, mën a am war na ko caa taxaw loolu bu dee fii ci biir Touba su fekkee ci bitti dëkk bi mbooloo yi fa nekk sëñ Touba yi ak jumaa yi it ñu maase fa topp ci jumaa ju mag ji ci Touba bañ sëlmal tisbaar euh, incha allah sëriñ Mouhamadul Xabaan ak kilifa yi ñëw def xatmu bi lii nga xam ne moom la sëriñ bëgg mu defale ko noonu mu ko bëggee salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi sant ci jataay bu tedd bii suñu kilifa gii nga xam ne euh, xam nañ ne sëñ xaalis mi mu waxloo rek doy na ndax mat na sëkk ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo féetewoo liggéey bi gën a màgg ci liggéey yi muy alquranul karim euh, sëñ Mamoun Xabaan mi ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi liggéey bii nga xam ne sëñ bee teg ci loxoom am ci lu kawe njortam zahiran wa baatinan ginnaaw kàddu yi nga xam ne sëñ xaali jaxate wax na ko kàddu yi may jëkkee mooy sant ak wax ne sëñ Mouhamadou Xabaan moom moo wax loo ngir rek firndeel wane ne liggéey bi ñu boole day liggéey boo xam ne du du ñaar benn liggéey la lañuy def ci biir jumaa ji ak lu ko wër lépp dafa tudd jaamu yàlla te sëñ Tuubaa da ko donn moom ko ndax alquranul karim ak xaside yi ak zikrullahi lépp alali sëñ Tuubaa la moom moo wax ne akramani al ilmu ma al amali lépp dafa féete ci sëñ Tuubaa kon suñ koy dundal lépp ànd ci yar ak teggin akuk dal nañu xam ne lépp ñu ngi koy defal sëñ Tuubaa te it lépp luñ ci bëgg te yéene ko ci te fas ko ci suñ borom incha allah dinañu ko defal li nga xam ne tamit euh, dina baax ñu ñu xamle ko mooy mboolem bunt yi nga xam ne ab jaam dina ko bëgg a ubbi ngir jot ci njëriñ la boo ci jël caabi yar ak teggin def ko ci rek dinga nga ci jot kon lu waay di def na ko def ci dal ak def ko ci yar def ko ci ay teggin ñu xam ne euh, mbooloo mi ak bis bu ni tollu daaw njàngum xasida la woon te kenn xajutoon ci li wër jumaa ji daan nga yor sax teraanga bëgg dikk ba ci jumaa ji yót ko mbooloo mi waaye doo ko mën ren euh, njàngum alxuraan mi moo jiitu ne ci biir jumaa ji njàngum xasida mi euh, sës ci zikrullahi it dolli ko ci loolu kon xam ngeen ne yar ak teggin képp moo mën a lijjanti ba li ñuy def mu mën a yéwén te dara du yàqu loolu nag kon nañ ci soññee bu baax ñu góor góorlu ci may yeesalaatit cantug euh, sëñ Mouhamadou Xabaan mii ci mboolem ñi mu seqal liggéey bi muy xam Xamsatu dégg na bi sëñ Xamsatu wootee tudd na ko ci ngir wane ne lipp benn liggéey la nun itam woote bañ defoo it xam nañ ne moom mii mooy sunu kilifa jiituñu ci lépp tamit sëñ euh, Mouhamadul Bachir mu yor kàddu sëriñ bi moom sëñ Abdou Khader waxam ji tamit dong yëpp dégg nañ ko kon ñëpp a ngi waaj kon xanaa ñaan rek suñu borom dimbali nu ba li sëriñ bi bëgg ci noonu mu am ko ci noonu waaw ndax xam nañ ne moom sëriñ bi moom lépp ngi ci loxoom nun nag nan góorlu ba yoon wi mu ñu teg ñu mu jaral ñu lépp te nu def ci sunu lépp te xam ne sëñ Tuubaa kenn ku ne ci nun ni nga ko joxee sa bopp weesuwul ku yor kookos ndox ñëw fekk géej kookos ndox mënoo cee naan sangu ci fóot ci euh, togg ci ba noppi di ko soxla bis bu set loolu kooko si ndox ndox munu ko waaye boo wëlërantee géej ba saa boo soxlaa ndox ñëw jël si ko ci géej ñun ñëpp noonu lañ def suñu diggante ak sëñ Tuubaa sëñ moo mën na ñëpp lépp waaye kenn mënulu ko dara jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin tabarrukan moo ma tax a toog fii di yëkkati ay kàddu waaye lenn lu may dolli ci lu aju ci li alaaji Mouhamadou Xabban Mbacke bëgg a yëgle wala ci ak leeral ci muy yëgle ni sëñ bi bëggee liggéey bi amatu fi ndax ñi fi jiitu seen wax yi mat na te rafet na waaye nag fawqa haasal minbar as sharif képp koo xam ne kii yàlla daf laa baaxe ñu ne la kaay wax fi danaa fi wax tabarrukan tabarrukan doo nga tax waaye du leneen lu ma fi indi sama bokki taalibe bi it ñu ngi sant bu baax a baax ndax daal sëñ bi sa boo xamee ni bii joxe na ndigal suñu ko defee balaa ñoo noppi rek lañ ca yaakaaroon te ñoom seen yaakaar yi soo ko dee méngaleeg pas-pasu sëñ bi du dara waaye dañ koy daal di gis ndigal lii bi mu jógee se alaaji Mamadou Xabaan sàkk woon na ci fu ma fu sama man-man toll naa ko fa yeggale ci xamle ko muy ci dëkki kaw yeeg muy ci yëpp wóor na ma ne sëñ bi lam fas ñun xamuñu ko ndax tuuti nañ ci xam pas-pasu sëñ bi tuuti nañ ci xam yéeney sëñ bi ndax jëf ñoo ëpp waaye bi ma koy yëgle fu ma koy yëgle fu ne rek kenn ku ne lay sa yitte wax nga ku ne waaye ndax yàlla nangam ñi ne ndax yàlla jàmm am ci réew mi ñu ne ndax yàlla bu ah nawet bi de fi mu toll nangam nangam waaye bi ma ko waxee benn fan ñaari fan di soññewaat kenn ku ci nekk sëñ bi yaa ma wool sa bopp ne ma ah ñun de sëñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax kon nag El Hadj Mamadou Xaban mu murit yëpp sañ naa ko wax ñu ngi sant sëñ bi ci di leen digal saa bu ne lu leen di amal njariñ nga ñaanal leen saa bu ne it nag ñuy jëfe jëfee ndigali leen sëriñ bi di jëfe di di di jox. may sàkku ci sama mbokki taalib bi saa bu sëriñ bi joxee ndigal buñ tàmbalee ndigal bi lu mel ni ki ndigal lii tey dimanche lañ waxoon na ñu tàmbali ko nañ ko topp ba ca dimanche ji altine insha allahu waaye fi ne nii biñ ko tàmbalee ñaari fan rek lu ñu baree baree bari la leen jaaxaloon te ñoom ñu fasaale ko ca te fekk te loolu du dara ci par rapport ak fas sëñ bi gis nañ ci seen pas passé seen yéene yi aaju ja faju na ñu bëgg xam tàmbalee yoo xamal sama bokki kaw-kaw yi nga xam ne ñun ay baykat lañu bi asamaan si tawee te daj kapp nee naa leen sëñ bi nañ ko topp ba ca dimanche ja nañ ko topp ba ca dimanche ja liñ gisagum la ca des a ko ëpp fuuf te la sëñ ba fas kenn xamut nu mu toll suñ tiraangaay àdduna ak ju àllaaxira ma nga ca kon nag nañ ko def ni ko sëñ bi defee. nee naa leen bu ci kenn xëy nag dese aw jiwu rek mu mu taw ci guddi gi ba set nga xëy di xëy ci sa tool ba. te daa jàng alquran suba jàngal alquran ba noppi dem waxtu ba ga xam ne da nga ko daa noppalu nga nga nga nekk ko ca tool ya maa ngi leen di siyaare tey ñaan yal nañ fi yàgg loolu tam ànd ak wér ak yokk zahiran wa batinan suñ xol yal na sedd ci sëñ bi sëñ bi xolam yal na sedd ci ñun wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi siyaare sëriñ bi bu baax a baax xam naa kàddu yu njëkkati eh, kàddu yi ndigal rek la. waaye mel na ne ñi fi jàlloon li ñu waxoon doy na sëkk waaye nag ndigal jëfe ndigal nag mooy sëriñ bi daf ñoo bëggal njariñ moo tax mu diñu mu diñu woo ci liggéey bii nga xam liggéey bi sëriñ Tuubaa te kon na xam ne sëriñ Tuubaa ab toolam mooy kon nag sëriñ bi dañoo bëggal njariñ moo tax mu diñu mu diñu woo ci liggéey bi rëy bii nga xam ne bi ñu ko tàmbalee ba léegi gis nañ suñu njariñ rek moo ci nekk ñi ngi ñaan yàlla nag képp koo xam ne alxuraan alxuraan mooy sa yitte nga gën a dolli sa farlu gën a dolli gën a gën a gën a gën a fedd sa laxasaay yokkaat sa pas-pas ba buñ àggee ca bis ba nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moom la sëñ bi wax na moom lay ñëw tëj tëj tëj tëj tëj euh, xatmu bi ñu defee ko ni ko sëriñ bu bëggee te xam na ne bu ko buñ ko defee ni ko sëriñ bu ñun liñ bëgg lépp danañ ko am kon nag ngi doolee soññe di woote de xam ne sëriñ bi lii rek moo di bëggam te suñu njëriñ rek lañ jubal ñoo ngi ñaan yàlla ci baaxu ci baaxub Seexul Xaadim sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Tuubaa suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér te ñu ànd kook moom te sëriñ Mouta Xaban mi nga xam ne moom la jox liggéey bi te muy liggéey bu ko yittee lool mu am ci ndam lu kawe njottam ci barke Seexul Xadim te ànd koog moom ñoo ngi nuyoo baax di jégalu barke Seexul Xadim salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci turu daayira xen ma kon nag sax ma doon taxaa ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko di nuyoo baax mboolem ñi nga xam ñoo yor wàllu daal alxuraan yi te Cheikh Mamadou moom Cheikh Amadou Fadal ak Cheikh Mouhamadul Basir mu Serigne Abibu ak Serigne Xaadi Jaxate ngànk nekk ci bopp ba bu ñu leen tuddee dañu tudd mboolem jàngalekati alxuraan yi ak fu ñu mën a nekk seen taxawaay bu rafet ñun nag daanaka dañuy jël kàddu waaye daanaka ñuy jël mënoon nañoo jëlaaleel ndax ñi fi wax ak kuréel yi ñu ci àndal ñenn ñu ci nekk ñoo ñoom am nañ jëflante bu rafet boo xam ne ku ci demoon mën a yóbbaale morom ja ndax Cheikh Mamadul Xabbaan ba mu wuutoo jàmbaram ja Cheikh Mamoram Cheikh Mamadul Fadal ca taxawaay yu rafet ya ba mu dikkee fa mu tegoon tànkam fa la ko sof di ko rafetal gën koo yaatal kon nag nañ ñaanal Cheikh Mamor ñaanal ko mu yàlla doolu koy njëggal ak ngërëm sëriñ xabbaan mii tamit ak mboolem ñi koy jàppale yàlla sunu borom dëgëral leen kàtt leen ba ndigal liy jóge sëñ bi ñu mën ko taxaw ñu ngi leen nuyu di nuyu sëriñ xamsatum sëriñ ab soxaybu ci taxawaayam bu rafet ci xasida yi ci saa bu ñëwee tamit ca barab ba euh, waxtu nekk li ñu tënkanteeg moom ak njabootam lu yombal liggéey ba kon ni ma ko waxee rek nit ñi booleel ñoo ñoom benn lañ kon ñu ngi leen di ñuy ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñoom du ñu ñaar benn lañ mu waaye daayira Hizbut Tarqiyyah euh, seen taxawaay ñun ak ñoom kenn koo xam ne kenn ku ci nekk sa liggéeyu bopp sax da nga cee am dem sa morom di ci xalaat ak di ci di ci di kon nag bu leen sëriñ bi boolee waxatuma ak loola. kon nag ñi ñu sëñ bu booleel bu ñu booleeloon ku ñu mës a sax lu mu laaj ci ànd ak moom liggéey danañ ko def. waxuma nag mu boole ñoo xam nag ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas ndax liggéey bi moom Serigne tubaa rek la ci Serigne Touba xatut lépp képp bépp liggéey bu ñuy xatal rax nañ ci lu du Serigne Touba lu lu xat du Bàmba lu ñaaw du Bàmba kon nag képp koo xamante ne yaatal nga te bëgg la ca des loolee liggéey Serigne Touba la liggéey Serigne Touba ba ñu koy liggéey nag ñun yàlla dogal ñu ñu fekk féeti fii jumaay Serigne Touba ji la ca war ci suñu bopp mooy ñu soññante ci barab bi ñu xam war may barab bi ku jóg jëm si jumaa ji nga xam waajaat xam ne nag war ma ci dëkk bi war na waaye li mu war war ci dëkk bi soo doxee jëm ci jumaa ji fa la yokkati ndax foofu mooy xol murid yi foofu mooy fi nga xam ne lépp lu fa nit def lu dul noona damaa jëlale pas-pas bi nga war am sa jëmmi Sëriñ Tuubaa waaye doomi aadama ci bopp metti gi leen di metti rek mën naa jur laneen ci yow kon nag ñu ngi sa ku fi ñëw na nga yokk worma yi wokk dal gi yokk teggin yi te xam ne barab la bu ñuy jariñoo barab bu ñuy jariñoo ku fa dem da ngay jariñoo fas yéene doo fa lor kenn loolee nag la koy maye mooy dal bañ a kenn te kenn ku ci nekk boo waree dugg nga dugg suñ demee ba lépp jeex ba ñuy génn kenn ku nekk ànd ko dal ba ñu xët-xëtloo kon nag nañu góorgóorluwaat ci yar bi ak teggin yi ci biir jumaa ji képp koo xam ne nag yàlla dogal na ndax sëriñ bi li mu woote mu jàng alxuraan jàng xasida sikurula ak i bernde ak sàkk sarax lépp bernde yooyu nag sëriñ bi moo ci jiitul boppam wax loo xam ne moom dana ko yëkkati def ko ca taalib bi tamit ni ko Cheikh Mamadou Bassir Serigne Abdou Khadir waxee sàkku ci taalib bi yëpp ñu def lu mel noonu kon loolu dana laaj ay taxawaay taxawaay yoo tax moo tax daayira Moukhaddamatoul Khidma laaja waajal nañ ko ci bunt yi nekk ci jumaa ji yëpp saa bu ngeen ñëwee da ngeen fekk ay ndaw xam danañ fa taxaw ku fa indi berne teg ko ci seen loxo ñoom waajal nañ ñooñ ko war a séddale sëriñ bi daal ñi ngi la xam ne waa daayira Moukhaddamatoul Khidma moom saa bu ndigal sëriñ bi jógee moom duutuñ xool lenn lenn lu dul li sëriñ bi bëgg nan la ñu fexe ba mu am ndax ndigalul sëriñ bi suñ njariñ rek la ni sëriñ bi li mu ñuy digal waxtu nekk ñun dañuy xool lenn daan ni lii de saafarawu na waaye wallaahi gëm naa ne man lu sëriñ bi bëgg ci nun li ñuy gis ci suñu bët mëtul asakaam sax li lim ñuy jariñ mëtul asakaam kon nag liggéey bi ñu ci nekkee nañ ci dugal ak sellal ak pas-pas bu yaatu te xam ne àtt na lépp te ñu ci fasaale suñu war yi dawlu yi liggéey bi ñu ko wootee àtt na lépp àtt na defarug àdduna àtt na kon nag nañ ci fasal ñi dem fasal ñi wér ñu wér fasal ñi fi nekk ñu tal ko te liggéey Serigne Touba te liggéey bi yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla na ci gis Serigne Touba rek ñu ñëw fi turu Serigne Afia bu sa imam ak turu daayira Moukhaddamatoul ñu yebaloon ñu ci jot a jot lu ci manqué rek ci ñun ñuy wax la waaye lu ci mat la baaxu borom bi la wa tabaaraka wa taala ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki taalibe yi bokki jullit yi ak bokki réew mépp ñoo ngi leen di jotali ab nuyoo ci turu sëriñ Mouhamadul Xabaan moom mi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha tànn mu wutu magam ju baax ja sëriñ Mamour Mbacke yal na yàlla dolli ay leeram mu dinu soññ ci alxuraan di soññi daara yi di ko taxaw kem kattanam ab taxawaayam rafet na lool ba jéggi ba jéggi day kon yal na ko sama borom ba yàggal ci liggéey bi kàddu yi dafa mënta ñàkk waaye dafa mel ne li ñu a wax lépp ñu fi jiitu wax nañ ko mooy soññee ci liggéey bi ak ndigal li nga xam ne moom la nu sëriñ Mountakha yàlla na ko fi sama borom ba yàggal ci sunu kanam te loolu ko ak wér te àggaleel ko ay yéenam ndax li mu fës yéene mooy taalibe yëpp ñu jullit ñëpp jëriñu kon liggéey bii munu sant nañ ci am pas pas ba bu baax parce que yéene ni mënu ko sante nu defe nu defe ko noonu tàmbale ko ci dibéer ji bis bu set nu nekk ca ba bañ ñuy àgg ci dibéer ji ba àgg ca altine ja bu ñu àggee ca altine noonu mu ko santaane te fas yéene moom ci boppam bu ko ak mbiram maye ak kattanam moo fas yéene xat mu njàng mi ñun ñëpp nan nan ko nan commencé am ci posté ak yéene ak sellal bu baax te lépp nag nu teg ko ci kaw yar ak teggin noonu ko sëñ Yeesu waxee ak ñi ko jiitu tax bépp bunt boo xam ne yaa nga ciy jëm ci sun borom te teggin ak yar nekku ci la nga ciy wut doo ko ci am kon nan fas yéene xam ne sun yoon wi moom mooy topp ci gannaaw sëñ Tuubaa mooy yar ak teggin te wee ci ndigal kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne waroon nañ ko ci wax waaye amuñu dara lu war a ñu war a wax lépp ñi fi jiitu woon wax nañ ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ok jërëjëf kon ñoo dégg kàddu yooyu nga xamante ni ci la Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abibou Daniel ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ko jiitu woon muy fàttali ak di jottali ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides te Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mu yor kàddoom fàttali ko njàngum alxuraan ak njàngum xasida mi nga xam ne dooroon nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar muy dibeer ji ñu génn dañ koy wéyal ba dibeer ji altine ji nag. mu doon bis boo xam ne bisub njàngoom alxuraan la ak xasida ak zikrulaa ñu di ko def ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi diglee kon ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi féetale njàngoom alxuraan mi ci njiital Cheikh Mouhamadou Xabbaan ibnu Cheikh du Fadal dégg nañu seen kàddu ak meelokaan wi nga xam ne moom la ñu bëgg ñu teewee ko ci bis bi ak pas-pas yi nga xamante ni moom lañ ci war a am di ñaan suñu borom ak lañ ci ak jàmm ci barkeb Cheikhul ñu def ko ni ko sëriñ bi diglee ba mboolem loo xamante ni fas na ko ci bëgg ko ci bëggal ko dongo yi suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ci barkeb Sëñ Tuubaa